ñoo ngi fi ci marché caaro yi nekk marché bu mag boo xamante ni ay légumes la ëpp ci li muy jaay bokk na ci lii di carotte navet supame limon bisaab ak yeneen yi nga xamante ni soxna yi dañ koy yittewoo ngir mën a matal li nga xamante ni moo di seeni ndugg ba ñu fa agsee marché bi ràññee nañ fi mbooloo mu takkoo takku yu bàyyeeko ci ay gox ak gox goxaan yu wuute lool te soroe lool fare fii ci dakaar ci région yi ak ci bitim réew gannaaw ci loolu góor gile bokk ci ñi nga xamante ni yàgg nañ lool ci bile marché mu ngi dikkalaat si cosaanu marché bi ak jaar-jaar yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fi. marché bi moom yaakaar naa ne marché bi du Sénégal dong ndax marché bi àddina la waa Mali waa Gambie ñëpp Sénégal ku bëgg bagage tey ci marché bi ngay ñëw jënd fi bagage ba Gambie yóbbu Mali tout ça ñëpp. fii la ñuy fii la fii la ñuy dugg si kon marché bi dafa jar xalaat ci xalaataat yi dafa jar waat ndimbal ndimbal ndimbal li nag mooy marché bi rëy na lool ndax marché bi kenn xamul fu mu yem ndax marché bi fii nga ko gis nii daanaka fii mu commencé daanaka bu la neexee na marché baa nga jàmm gën amut fu mu yem kenn mun laa wax la marché yi cantine yi nangam la toll kenn mun la koo wax ndax marché yi marché bi dafa rëy ah marché bi nag yàgg na moom wax dëgg yàlla marché bi moom bu ma la waxee kañ la yàgg na trop ndax ñu bëree bëri dañoo judd fekk marché bi ndax marché caaro yi mooy marché bi nga xam ne mooy bu mag bi nga jëkk bu jëkk ci Dakar kon kon kon bi moom wax dëgg yàlla ay atam su ma la waxee mën naa koo lim damay kii yéen xam naa daal yàgg na xam naa daal moom xam naa lu mu dee dee dee dee juróom fukki at yi moom mat na ko ci li ma xam man ba ma xamee ak léegi rek déjà kon léegi dèjà fi mu nii kon marché bu yàgg la yàgg boobu nag ci lay lawee di law di law di law ba kenn xam fu yem waaw yàgg na daal wax dëgg yàlla daal yàgg na waaw marché bi nag moom daanaka fi mu toll nii daanaka li ma la wax rek li ma la njëkk a wax rek moo fi nekk parce que marché yëpp moo gën a yomb bagage waaye nag li marché yi fi nekk yëpp moo gën a yomb moo fi moo fi gën a parce que dama ne la marché bi ci la ñuy duggee di yóbbu ci yeneen marché yi ah mooy alimenter marché yi yëpp moo leen di alimenter kon kooku yomb tax mu koy yomb tax mu fi kiyeen léegi nag su fekkee nag bis bu mel ne bisu tabaski wala bisu korité wala bis yooyu maanaam kooku day laaj sécurité nag ñu ñu dolliwaat sécurité bi waaw bu ko bu ko defee xal mu ko defee ñu gën a ñeme waaw parce que sécurité bi daal wax dëgg yàlla mën nañ koo dolliwaat daal pour ñu gën ko ñeme parce que ñu bëree bëri sécurité bi moo tax sax lu bëree bëri ñu xaw a tiit tuuti daal waaw loolu daal laa amoon ci lu may wax. marché bi moom xam naa ni dama juddu fekk fi. waaw sama papa nag moom si marché bi la nekkoon donc histoire marché bi moom du ma si mën a woo xuus lu bari ndax jiitu na sama at mais daal 2015 ba léegi maa ngi fi marché bi donc changement yu bëree bari tamit fekk na ma fi gis naa fi tamit ay changement marché bi bon bëri na lu ñu fiy jaay daanaka mën naa ni lépp jaay parce que marché bi boo lépp loo bëgg rek am na fi lépp loo bëgg franchement am na fi yëpp bagage yëpp am na fi daal waaw lu si mel ni soble laaj pomme de terre lépp daal fëgg jaay baa ngi fii euh, alimentation baa yi fii cosmétique baa ngi fii ak leneen ak leneen ak leneen daal muy marché Thiaroye ma franchement non non doxuñu ko gëdd ak akam par rapport ak yeneen marché yi na xamante ni marché internationaux yi nga xamante ni ñooñu fi yaa leen di gis donc mën na ni marché mun mënoo ko comparer ak yeneen yi pas pour le moment parce que am na évolution yu bëree bëri yoo xamante ni war nañ ko def ci marché bi lu si mel ni maire bi aussi war na jël ay dispositions yu bëree bëree bëri maa ngi passage am na yenn changement yu mu def mais matalewul lépp daal matalewul lépp mais bëri na ay changement yu war a def yoo xamante dina yombalal ñun commerçant yi ak jëndkat yi tamit ñu mën a lëkkaloo normal te du ñu benn jafe-jafe. non non non marché bi moom day fonctionné 24 heures sur 24 parce que heure boo fi ñëw dina fekk nit ñi di jaay. bu ñii di wàcc am na ñoo xamante ñoom ñu ni commencé lal pour dàq fajar gi donc marché bi moom marché la boo xamante ne dafa ouvert tout Euh, bureau baa ngi fii aussi ñu ngi sécuriser marché bi maire aussi am na ay éléments am yoo xamante ne aussi ñu ngi yor véhicule di circuler di superviser marché bi moom. caaro yi bon man def naa fi à quatre voire cinq cinq anné waaw mais daal marché bi liñ ci mën a wax bari na ci loo xamante ni ay baax-baax la ak loo xam ne aussi ay mbir la yoo xam ne des fois du ñu neex quoi waaw donc liñ ci mën a wax daal bari na. ndax euh, nekk na milieu boo xam ne ñun dañ koy tiitaroo dañ koy sagoo parce que lu ñu am rek fi lañ ko jëlee waaw sant yàlla rek ah, ndax li ma wax sànq ci ginnaaw rek moom ñu ci la ñuy sutur la quoi bu ñu xëyee toog ci table yi jaay rek suñu xol day seet parce que ñu ngi xalaat bu ñu xëyee bu wàcc rek am ci lu ñu yóbbu kër ga am ci lu ñuy fajal suñu soxla yi malgré que condition yi ma wax sànq ci ginnaaw métti na mais ñu ngi koy sant yàlla ko non xam kaani nag dafa nekk loo xamante ni ah, bagage boo xam ne laajul yenn stocké da ngay jël lu tuuti lu yem loo mën a liggéey tey wala diggante tey ak suba nga jaay ko mu jeex bon prochainement nga wuti leneen parce que bagage bu tooy la bu defee de deux wala trois jours day yàqu ci yow moo tax dañuy jël benn saak saak boo xam ne day tolloog euh, vingt kilos voire vingt cinq kilos nga jaay ko mu jeex après nga jëndiwaat leen noonu la ñuy yëngatoo ci kaane gi dafa xaw a wuute ak yeneen bagage yi nga xam ne bagage bu waw la mën nga ko téye stocké ko mu def des semaine des mois wala sax ba déwén te am benn problème waaw donc ñun kaane gi noonu lañ ciy liggéey dañuy jënd lu ñu mën a liggéey tey wala suba rek après mu jeex ñu wute wutewaat leneen waaw bon marché Thiaroye aussi euh, marché la boo xam ne ñun dañoo judd fekk ko fi mu nekk marché bu am am solo nag ci noyau Sénégal économiquement parlant mu doon euh, pilier bu am solo ci Sénégal parce que marché la boo xam ne moom moo nekk au diamètre de tous les autres marchés parce que marché bu mënti nekk fii ci Dakar moom moo lay alimenté donc baykat yi bu ñu bayee importateurs yi bu ñu importé et cetera je pense que ñoom ñëpp bépp bagage bi dugg Sénégal marché Thiaroye ngay wàcc su ko defee yeneen marché yu ndaw yi mun si jël kenn ku ci nekk dem alimenté sa marché donc loolu moo tax sax da ngay dégg des fois ñu naan la marché Thiaroye mooy marché bi gën a yomb bagage si marché yi parce que boo fi diggee li ngay war a amee prix engoro moom lay moom la lay jaay en général prix prix détail donc marché la bu mag bépp légume boo gis muy carotte ñambi pataas jaxatu bu nekk daf fi am euh, spécial paqam boo xam ne euh, minimum dina mesurer un hectare wala deux hectares donc kon loolu du marché bu ndaw kenn mënul xayma nu mu toll nag vraiment kenn xay xayma nu mu toll marché bu mag la boo xam ne bu jar a bàyyi xel la vraiment. bile marché am taxawaay bu màgg màgg ci réewum senegaal waaye noonu la bëree ay jafe-jafe ñeel ñi nga xamante ni ñoo fi daane seeni doole bés bu yàlla sàkk ak jafe-jafe yi nga xamante ni takku na lool ñeel bile marché ba tax na ñoom ñile ñi ngi artu bu baax a baax waaye di xool waaye nag am na gaay yu fi nekk ñu ngi góorgóorlu ndax marché bi kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk ku mel ne Baye Dieye ak ñi mu àndal ñëpp ñi ngi ciy góorgóorlu bu baax ñi ngi ciy góorgóorlu bu baax ak Ousseynou Diouf ñoom ñëpp ñi ngi taxaw ci marché bi sécurité bi ñi ngi taxaw ku mel ne ku mel ne euh, kii Omar Omar ñoom ñii ñoom itam ñi ngi taxaw ci ñi ngi taxaw ci marché bi ci sécurité bi waaye sécurité bi nag def leen a ëpp doole ndax marché bi day àddina àddina la waaye ñu ngi ciy def sécurité bi ñu ngi ciy def liñ ci mën lépp ñu ko ciy def léegi nag liñ ci bëgg mooy ah, marché bi xar na xar na lool wax dëgg yàlla liñ ci bëgg mooy tëli yi tëli bi nga xam ne mooy moo jëm moo jëm pàkk pàkk pataas luñ ci mën ñu def ko ci waaw marché bi moom am na boo ko seetloo am na pàkku ñambi am na pàkku pataas am na pàkku supame pàkk yooyu daal laa xam yoo xam ne yii am na fi am na pàkku ñambi am na pakku potaas am na pàkku ñambi waaw a ah, léegi nag li ñu leen di wax daal ñu ngi leen di sant leen gërëm di sant ñi nga xam ne ñoo fi góorgóorlu di di di di ñaan yàlla it maire mu gën a waat ci marché bi ndax ko am lu kenn amut ku am lu am kenn amut danga nga cay góorgóor ndax marché bi amut fenn maire rek moo ko maire maire Thiaroye Gare rek moo ko am Mbaye Seck rek moo ko am Mbaye Seen mi nga xam ne moo ko am nag mbay seen mi nga xam ne moo ko am nag moo war a góorgóorlu ndax ko am lu kenn amut da ngaa war a góor góorgóorlu comprendre mais jafe-jafe bi ëpp bi ñuy jànkonteel ñun commerçant yi nawet bi lay doon si ëpp nawet bi lay doon ak euh, yenn yoon yu xat yi te yooyu je pense que ni kenn andileeguñu si kenn andileeguñu si solution donc je mën naa ni ma ko fekkee daal ba léegi dara changé wul li mu nekk nekk suñu place ñu di ko sagoo des fois dañuy xëy jàkkonte ci ak ay jafe-jafe yoo xam ne des fois mu am fu ñu yegg waaye nag sant yàlla waaw jafe-jafe bokk na ci ci marché bi nga xam ne xat na amul organisation waaw ñuy liggéey ci conditions yi difficile waaw amuñu place yoo xam ne aussi dina mën a tax ñu toog liggéey sunu liggéey tranquillement waaw dañuy dañuy boxatu tey fii suba fële ba fi ngeen ñu fekk nii sax ñu toog kaw yoon la bon mën nañ ko tuddee occupation euh, espace public parce que oto yi dañ fi jaar ñun ñu ñëw installé fi di fi jaay donc loolu jafe-jafe la bu ñu sañoon dañ am foo xamante ni dañ fay toog aisé wu toog tranquillement liggéey te kenn du ñu dérangé quoi waaw coono moom sunu Sénégal gi sax boo xoolee li muy yaatu yaatu bari na ñoo xam dañ fi dund coono donc coono ak ak ak ak yëngu-yëngu àdduna ñoo ànd waaw te bëgg-bëgg yi des day nekk dañuy am différence moo taxal moo waral coono di am parce que marché la ku ci nekk la plupart dangay ngay xëcc pour sa bopp donc loolu bu amee pour ñu liggéey ci conditions yi favorable day xaw a nekk problème ñi li ñuy bëgg ak ñi li ñee di bëgg du nekk du nekk benn donc kooku nous sommes obligés ñu dund des ay jafe-jafe mënul ñàkk loolu bokk na ci li waral marché bi yaatu ba pare bari problème wala day mujj xat sax ci biir waaw loolu ci xol la parce que man bu ma bëggee lii nga bëgg le te yaatu luñ suñu xol yi ba mën a ànd liggéey ci jàmm marché bi lu mu yaatu yaatu day xat waaw loolu bokk na ci li tax marché bi yaatu ba pare mais dafa encore. marché bi nag bi ngeen di dugg am ngeen problème mu pour dugg ci yoon yoo ko jël ci secteur bi rek pour nga dugg fi problème la ñii ñoo fi tàmbali woon lii li ngay gis nii tali la mais actuellement nii nit mënu fee jaar ba oto yi bu ñu ñëwee fii fii la ñuy taxaw ñi yenu bagage yi di ñëw sonn nañ trop marché bi lu ci ne manque d'organisation la. moo am ci marché bii nga xamante ni mooy marché Thiaroye marché international Guinée Bissau fii la ñuy ñëw Mali fii la ñuy ñëw ah Mauritanie fii la ñuy ñëw kon nag marché boobu ku ko jàppale rek ah, marché bu baax la am na benn marché buñ fi tabax muy marché international bu jam ñaajo boobu nag ñun pareeguñ pour dem ci dinañ ko lancé waat pareewuñ pour dem ci encore une fois. waaw loolu question boobu ñëwoon na fi mais question boobu li tax mu ñëw fi dool euh, du marché baadoo la ndax marché boobu noonu tey li nga xamante ni mooy lëjum bi tooy bi bu fa nekk dañ koy consommer te frigo yi liñ koy fay dafa cher waaw te nombre personne bi nga xamante ni dafay dagg juuti boobu dafa cher waaw moo tax marché caaro yi nañu ko nañu ko defaraatal laa daal yombalal ñu accès ñu jàppandal ko ñu liggéey ñun ba nguur gi xaaruñ ci dara ñun ñoo ko mën a jàppale kon nag moom ci loolu la ñuy jàppale waaw muy président Bassirou Diomaye fay ñu ngi koy interpellé ci lii man moom waaw toog naa moom ay yoon kon nag ñun ñi nga xamante ni tey ba mu doonagul daal ñu ngi ciy jàpp kon ñu ngi koy interpellé ci lii waaw mu ñëw jàpp ci bu baax a baax a baax. procédure bi moom euh, su ma juumul teg nañ fa ñaari directeur directeur ñëw na fa directrice ñëw na fa mais dañoo échec ci mbir mi waaw ci nu ñuy wax ne dañuy fa yóbbu ak nombre bi ñu fa nar a fayee loolu la néew ju doole attanul loolu la mais actuellement nii daal procédure boobu tegaale nañ ko ci suuf mais ba léegi. amaguñ ci dara mais comme que nguur gu bees mooy ñëw di installé il faut mu jéem loo xamante ni tamit ñu wax ko ne ko nguur gi esegoon na fàttali ko ko moom tamit bu ñëwee jéem a li nga xamante ni moo fi nekk mu jéem ñoo yaatal ñu liggéey loolu daal moo ci nekkagum pour l'instant. waaw waaw maire yi parce que gisoo tali karo bi commencé woon nañ ko commencé woon nañ fi def fii ay tali karo mais dañ ko mujj arrêté parce que tali karo bi fii rek te war nañ ko mën a def mu wër def marché bi daal. li wala mën a wax mooy liggéey bi des na lu bëree baree bëri ndax gis nga ko suñu lamp yi baaxul kon normalement waroon nañu mën a indi sampal ni fii lamp benn lamp bi rek doyul yi ñu manqué fi moom en même temps douze douze douze amuñu ko amuñu ay douze amuñu ñu manqué bari na trop te ñu sañoon ñu am ko ndax ginnaaw yàlla ñun ñoo ñi ngay wax noonu ñun ñoo lañ yaakaar mais ñooñu daal wax dëgg yàlla gisuguma leen fi ñun Mbaye Sène mooy suñu mairie fii mais Mbaye Sène moom bi mu faloo ba léegi man gisuma ko dégg naa ne dana fi ñëw mais daal liggéey bi moom des na lu bëree bëri Caaroy daal ñun gisaguñ suñu bopp bopp pour muy leer. ñii di ay ndaw ay responsable ak ci borom kër yu ñu fekk fii ci marché bi di ñu xamal bés bu yàlla sàkk ñi ngi si bile marché ngir suturlo ngir am seeni dépense yu ñu mën a yóbbul seeni njaboot waaye terewul ñi ngi ànd ak seeni ngor ak seen dignité bu baax a baax bés bu yàlla sàkk. ah noonu la parce que noonu liggéey yëpp di demee ñun aussi noonu lañ koy dundee des fois ñu toll moment yoo xamante ni da sa xel day nekk sax ci bañoon a ñëw marché toog kër ga quoi mais nag euh, comme li ma wax sànq yàlla moo ñu ko natoo quoi dañuy ñëw mu neex suba ñu ñëw mu naqari ñu xam ne démb neexoon na quoi noonu lañ koy dundee. dañuy ñëw des fois yi aussi ni muy méttee ci ñun noonu lañ méttee ci ñoom parce que dëkk bi mooy toll période boo xam ne dafay dëgër ci secteur yëpp nag. ñun ñu jaay leen ñoom dañuy dem duñu am problème mu jaay ko duñu gis kuñ kuñ ko jaay donc suba pour ñu ñëwaat day nekk jafe-jafe léegi kon ñun duñu leen gis voilà day am daal période yoo xam ne dafay jafe tellement dafay métti tellement ci ñun ak ci ñoom quoi suñuy client mais nag sant yàlla daal sant bu baax a baax. waaw marché Thiaroye de euh, defe naa su ma juumul ñu ngi ko sancoon fi ay côté 2006 set yooyu waaw ñun na karaw la ñu jaay di jaay saako yi. kii nag moom mooy suñu papa moo fi nekk mooy délégué bi waaye nag man doomam la mais pour lu ñu naqari ci marché bi moom ak lu ñu neex ci marché bi ah wax dëgg yàlla ñu ngi fi am sutura parce que carotte bi Fass Boy lay jógee léegi bu jógee ko Fass Boy bu ñëwee fii dañu koy jaay par saako am na détaillé mais ñun na par saako la ñuy jaay li ñu neex ci marché bi mooy ah wax dëgg yàlla am nañ fi jaamu ndax ñu ngi jaay wax dëgg yàlla di am suñ luñ suturloo di ñibbi waaye tamit am na lu si lu ñu naqari mooy marche bi des naa nekk euh, amul organisation daal maanaam maanaam puccoxoo la te marche Thiaroye bu mel ni war nañ ko def marche boo xam ne marche bu moderne lay doon xam nga la bon léegi gis nga bi ngay ni ñëw bu fekkee xool ngeen fii yoon wi fii amul yoon gars yi bari nañ fépp marche bi léegi marche puccoxoo la bu ñu señoon a ah, ñu wax ñi nga xam ne nii mën nañ dara ci affaire yi ñu ñëw xool marche bi organiser nañu marche ba nga xam ne nii oto yi danañ mën a dugg danañ mën a génn mais pour l'instant nii oto bu dugg ak bu génn problème la te loolu bokk na si jafe-jafe yi nga xamante ni ñun ñuy jaay fii parce que ñu bëri duñ egsi fii ñu bëri fële la ñuy yem te boo xoolee fii mooy xoolu marché Thiaroye fii mooy fii moo tax ñuy wax marché Thiaroye ñu nekk nii parce que bagage bi wàcc lépp ci lay wàcc carotte beeg nawe beeg lépp fi fii moom lëjum yu bëri na am na day jaay carotte day jaay navet basante jaxatu ba euh, soble pataas bari na daal supame pomme de terre lépp ma macha allah lépp kaani salaat ak lépp daal mi ngi fii moom waaw waaw loolu am na loolu am na boo gisee ñoo moo wax la loolu loolu moo tax ndax par exemple marché Thiaroye boo xoolee biir dakaar boo xoolee côté nañ koy waxee te ba fii ba Thiès ñëpp àll bi ñëpp dañuy ñëw fii fi la ñuy jëlee bagage ndax moo gën a yomb waaye comme li ma la wax mooy ñàkk yoon bi loolu mooy suñu problème maanaam war na mun a am yoon war a mun am loo xam ne nii tey oto bu ñëw di nga dugg ku ku ko ci àll bi sax da ngay ñëw su oto nga ñëw am foo gaare mais instant tool ni amul loolu te loolu baaxul ci marché bu toll ni marché Thiaroye marché Thiaroye boo xoolee li muy dugal fii amul benn marché néew na marché bu koy dugal ci xaalis su ma si su la waxee ne la par lay dugal moom a ah, damay wax lu ma neex waaye man am naa njott ne moom li muy dugal moom ay millions yu bëree bëree bëri lay dugal par weer moom mais nag ak actuellement nii moom pour li muy dugal dugal euh, comme mois bi nii moom mën na ma la waxee moom mais xam naa ne moom par weer moom danay dugal fii millions yu bëri moom ah, ah, te lu mel noonu moom wax dëgg yàlla war nañu ko mën a defaral boo xam ne nii daal moom dañ ci gis suñu bopp. yile jaaykat fare si bile marché ñi ngi xamle bu baax a baax que ni gouvernement bi génnoon si njiitu kii di président Macky Sall marché caaro yi xawoon na desandi gannaaw bu baax a baax. waaye taxul ñu découragé wu benn yoon. tax na ñu am beneen yaakaar daal di ko wekk si moo di njiit bu bees bi di président Bassirou Diomaye fay ngir mu ñëw. bu baax a baax bàyyi leen xel bu baax a baax lii di marché Thiaroye ndaxte marché Thiaroye nekk na marché boo xamante ni bu mag la lool. waaw état bi taxaw bees boo gisee mën a mana a a mënaan nañ dimbala maire ñoom ñoo tax may wax ndax état boobu état bi nga xam ne moo taxaw bees moom dañoo am ci ñoom yaakaar ndax dañuy ay xale di mën a xam lu baree bëri xam nañ ko amuñu luñ leen di wax parce que xam nañ lépp dund nañ ko. dund lañ dund nañ dund li ñuy dund ci mba li ñuy dund Sénégal lépp dund xam nañ ko comme nag ñoom li ñuy taxaw ci ñoom ci bees mooy ñu gën a góorgóorluwaat ñu gën a góorgóorluwaat dimbalewaale nag suñu maire muy Mbaye seen ñu gën koo dimbale bu baax man mii di wax ak yéen nag man maay Amadou Ndiaye di nekk ci marché bi di kilifa ci marché bi di imam ci jumaa yi di imam ci jumaa ji nag boole ci waaye li ma bëgg daal maa ngi leen di ñaanal état bu bees bi ñu toog ak jàmm waaye ñu geesu nit ñi dund bi métti na wax dëgg yàlla dund bi métti na lool courant bi jafe na lool lool lool lool lool lool lool yëpp lépp loo xam ne luy nécessité rek ñu wa ñu dimbalañ ci ngir yàlla ndax nit ñi dañoo dañoo sonn nit ñi da sonn nañ trop trop trop trop ñu dimbalañ ci jàppale wàllu sunu maire nag moom mu mu waxaat wax naa ko waxaat ko mu gën a defar suñu marché parce que ñun marché bi la am parce que ñun lépp loo xam ne Sénégal da koo laal rek ñun def ñu laal parce que loolu rek moo ñu moo ñu moo ñu kii parce que dañoo wax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar kon marché bi itam benn marché la ci Sénégal nag ñu jàpp ci. évidemment ñu ngi def appel si président Diomaye fay mu def changement bu bëree bëree bëri parce que marché bi laaj na liggéey. liggéey bu bari parce que commerçant yi mag ñu ngi fi ñu ni liggéey bu baax a baax population bi boo xoolee ñu bëree bëree bëri dañuy jugee fu ne di ñëw di jënd si am ñoo xamante ne dañuy jaay si donc je pense que ni marché bi war nañ ko gën ko taxawu jàppale commerçant yi fi nekk ngir jënd beeg njaay bi tamit a jaar si jàmm. waaw kooku dañ koy ñaanal yàlla parce que boo xoolee ñun ay jeunes lañu euh, la plupart ci jeunes yi boo xoolee bokkoon nañ ci ñi nga xamante ni dañ doon ñaan yàlla. denk ñu président boo xamante ni moo xam ñu bokk ak moom gis-gis wala ñu ñàkk bokk ak moom gis-gis ñu ànd ak moom wala ñu bañ a ànd ak moom mais mu nekk koo xam ne dafay comprendre jeunesse bi wala mu comprendre les sénégalais de manière générale. lépp loo xam ne ñu ngi ko ci xaar ci wàllu ndimbal wala jàppalante ak askan wi surtout la jeunesse mu def ko donc ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla dimbale ko yàlla jàppandal ko yàlla woyofal ko yen bi ba nga xamante ni. lépp li nga xam ne tegu na ci koom dina woyof quoi waaw mu bàyyi ñu xel xam ne ñun nous sommes trop dynamique parce que liggéey rek moo ñu ñor moo waral ñu bàyyi dëkk ba ñëw fii li xëy fajar bàyyi lali ñëw fii te loo ci xamul fi lañuy toute la journée fi lañ koy def dañuy jóg ay 3 heures du matin 4 heures du matin on passe la journée ici ba 20 heures ndogu ba pare soog a donc nous sommes trop dynamiques la il faut le dire bu ñu bëggee ku ñu bu ñu bu ñu amee ku ñu mën a jàppale aussi dañ koy dañuy jël donc président ñu ngi koy xaar ci loolu mu bàyyi xel jeunesse bi moo xam jeunesse su marché Thiaroye yi wala feneen mais jeunesse bi daal parce que comme ci lañ bokk dañ naan na bàyyi xel jeunesse bi jàppale ñu ak euh, ci nu mu ko mën a defee daal ñun dina baax si ñun quoi. mooy que marché bii nii marché international la marché Thiaroye yi marché international la comme lii nekk ci président bi ñu fal yees mu am programme programme boobu nag dañoo bëgg marché caaro yi bokk ci. ndax bu ñu ne emploi fii la fekk baax ndax li fii xëy ci eh, ay ndaw ak i jigéen kenn xamul nu mu toll ku la wax ne lii rek la mënul koo xayma ëpp lu fi yeewo bari na trop mais ñooñu nag li nga xamante ni moo ñuy jàppale mooy ñu wutal ñu lu nga xamante ni eh, njongal mbay mi bu baax a baax a baax a baax dooleel ndax nawet bu bu ñu demee ci kanam tuuti importe bi moo fi dugg importe bi mi ngi jugee Maroc mi ngi jugee fi nga xamante ni mooy Espagne te il faut ñu arrêté ko arrêté ko bay loo xamante ni dinañu mën a dundal ci douze mois yi ci trois cent soixante cinq jours yi dinañu mën a dundal ci Sénégal te ministre bi nga xam ne moom mooy ministre de l' agriculture bi ñu fal am nañ ci bu baax a baax a baax ak président bi lu mu teg nii ci programme mu Pastef am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax na kon nag dañuy jàpp dañuy ñaan ñëpp ñëw jàpp ci liggéey bi képp kuy sénégalais ak sénégalaises ñëw jàpp ci liggéey bi nga xamante ni mooy lool. Bassirou Diomaye Faye de macha allah ndax boo xoolee am nañ Pastef te vraiment li ñuy wax ñu ngi koy bëgg a ndax gis nañ ay jéego yi ñuy yi ñuy teg ndax ñun ñii sax boo xoolee ñun moom vraiment ñun moom lañ bëggoon sax pour mu falu te yàlla dogal na falu na mais nag ñu ngi koy xaar ci ne ko jeunesse caaroy Gare wax dëgg yàlla yàq yónni dañ dañ ñoo yónni yàkkamtuñu bëgg nañ daal ñu defal ñu fi loo xam ni moom benn président bi fi jaar defagul ko bëgg nañ ko mu def ko marché caaro yi dimbali ñu ci lépp defal ñu duus defal ñu lamp tali oto yi mën a dugg génn xam nga nit ñi dugg génn parce que marché moom bu fekkee dafa nekk benn bunt rek surtout marché caaro bi dafa xat mais marché caaro dafa war am ay bunt yoo xam ne nii duggee fii di génn di dugg génn mais loolu yëpp manqué nañu surtout na boo demee ba nawet fii yëpp day a Euh, nguur gu bees gi moom ah njort bi ñu am ci ñoom yal na ko yàlla gën a gën a gën a ful rek parce que ñu jàppale ñu ñun moom ku ñu jàppale lañ bëgg ndax liggéey rek la ñuy def marché Thiaroye bi ñun xamuñu fenn fii xam boo xoolee depuis longtemps ba léegi ñu ngi fi avant marché bi di nekk fii nekkoon na fi nekk na fi ba fii la mujjee te loolu yëpp fii la ñu fekk mais suñu sañoon daal ñu gën a yaatal marché bi gën koo taaral defaral ñu ko ba même nawet bu amee ndox du am fii mais nawet bu amee ñu bari du dootuñu liggéey fii te loolu échec gu nu mu tuddati échec la te loolu vraiment war na mën a ñàkk marché Thiaroye waaw sous le régime de Macky Sall nag euh, gisuma lu bëri lu mu changé fii ci marché Thiaroye wala diggante bi parce que sunu coow li noonu coow lépp ci régime moom la à la fin daal la doog a réagir euh, te boobu je pense que affaire jeexoon na donc mais comme Macky Sall mi ngi foon depuis 2012 ba 2024 vraiment gisuma changement bu bëri bu am ci diggante bi bon xanaa on peut dire la terre wala péage et cetera yooyu noonu yooyu moom am na fi mais su pour marché Thiaroye vraiment gisuma loo xam ne régime bi passé changé na ko fa donc nag comme régime bu bees toog na muy ñoom Bassirou Diomaye a ak waa Pastef donc ñoom aussi li ñu woote nañ ci nañ ci nañ ci jëmmal bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy commerçant yi ak acteurs yi parce que dem ci guddi maa ngi waxtaan benn acteur mu ne ma régime bi passé seen problème yu si bëri bi ñu koy def mooy du ñu waxtaan ñu mel na ñun voilà mu am yu bëri yu ma souligné loolu da aussi bëgguma mu dal ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk nañ ñëw caaroy am na fi ay borom xam na fi ay technocrate am na fi yi xam nañ dara parce que xëy yu xëy rek nekk commerçant nekk ay nañ ñëw toog waxtaan ak ñoom ñu xool naka la ñuy développer secteur boobu noonu bu boobaa dina gën am solo incha allah. ndaw bi bokk na si ñi nga xamante ni ñi ngi amal ay acte maanaam ak i ndimbal ak i soutien di ko jëmal si gox bile di ginnaaw raay bi nga xamante ni moo ëmb bile marché di marché Caaroy tax na muy dikkaat. yenn saay jafe-jafe yi nga xamante ni bile marché mu ngi koy amal. waaw dem ay jafe-jafe parce que je pense que ne sànq bi ngeen duggee ci marché bi yéen ngi dégg ñu si bëri di gërëm Cheikh Cheikh Cheikh donc du Cheikh Kassa sax mais mouvement ànd taxaw commune bi moom mooy dikk des fois di leen laaj seen i problème wala ñoom ñu ñëw envers mouvement bi comme xam nañu ci ay activité dénonciation wala def ay alerte wala def ay conférence de presse pour wax problème mu dëkk bi dañuy ñëw ci ñun defee nañu sunu marché bi kat tant de problème la am tant de doo leen ci dimbali bu ko defee ñun aussi ñu def leen ci axe wan leen ban yoon la jaar suñ ci jaaree mu kale aussi ñu organiser leen conférence de presse euh, bokk na ci assainissement marché bi tey marché bi boo xoolee amul benn canalisation te day taw day taw dañu utiliser ndox mais amul benn canalisation deuxièmement aussi dégg naa ñu ne marché bi amul ndox amul robinet amul robinet wala benn robinet la am ñoom ñëpp fa la ñuy rang di jënd ay bidons yu cent franc te normalement bu ci am salle de waroon nga mën a am sa robinet am li nga xam ne moom mooy sa ndox beneen bi mooy marché bi danga dafa enclavé wu foo ko mënti jaaree amul port waaw des fois man su ma fa doxantoo nii euh, des fois dama naan ñii naka la ñuy def ba oto yi di dugg fii te marché fekk oto yi ñu dugg ci biir nga gaare fu la neex mu am parking donc je pense que ni mu war a alimenté woo dëgg-dëgg day des beneen bi ci tegu mooy seen axe central bi nga xam ne moom moo leen yóbbu ci route nationale bi boobu aussi seen problème la woon je pense que sunu mouvement bi def na liggéey bu am solo wax nañ ci vraiment ba sonn mais nag yàlla def na ci xewal fan yi passé waa Azerun ñëw nañ def euh, def euh, réagir nañ commencé def amal ay liggéey te je pense que boo leen fa jaaree di ngeen gis ne télé bi mi ngi avancé euh, mi ngi jëm kanam vraiment. waaw marché bi sànq dama dégg délégué bi ne ku am lu kenn amul da ngaa war a jëfee nu kenn jëful marché bi dafa bëri commune yi mu jaar te commune yi mu jaar ñi mu gën a impacté mën naa ci tudd commune bu mel ne commune Guinaw Rail Nord. parce que gros porteurs yi fa la ñuy jaara seen camions yi des fois sax dañ fa doon daanu ay conteneurs dañ fay daanu. képp kuy client jugee zone Dakar wala nga jugee beneen département ñëw ci marché bi sa oto munoo ko gaare fenn fudul ginnaaw raay noor kon marché bi seen part de recette bi ñuy am man dama gis ne waa mairie ginnaaw raay noor dañ ci war a am loolu nag waxtaan la parce que gis nañ ko ci yeneen marché gis nañ ko ci marché mel ne marché bu bees ñaari commune je pense que ñoom ñoo ko bokk tey kon marché Thiaroye bi pour man benn commune ko sa waru ko mën a gérer parce que fi mu jaar dafa bëri dafa jaar ginnaaw raay noor impacté leen nag vraiment te su ma soñoon mbay seen ak yi xam na moom mooy Waly Ndiaye ñu toog ñoom ñaari maire yi waxtaan xool naka la ñuy lijjantee loolu parce que marché reset bi ciy génnee mooy defaraat marché bi boo demee ci commerçant yi même bu la meree buñ balewul marché bi danaan duñ fay juuti donc nag euh, suñu suñ bëggee affaire yi jaar ci yoon nañ jël euh, ñoom ñaari autorités yi waxtaan xool naka la ñuy defee la part des choses quoi vraiment c'est important da ci am solo waaw ñun nag euh, sunu sunu mbir yemaluñ ko si marché kese parce que même boo nekkee doomu commune bi wala nga dëkk ci alentour bi ñu jàppale ci lu nekkul yoon comme le cas de Ousmane Diagne bi nga xam ne Pastef la nekkoon dañoo génn alerté wax et cetera et lépp lu ñu gis luy yàq dëkk rek dañuy génn dénoncé ko dañ ciy dox ay jéego nag ba mu kale ba nga xam ne mënatuñu jàll ñu doog génn dénoncé ko en tout cas daal mouvement attaque mouvement ànd taxaw commune bi nekk lu fi lu dul waa commune bi. waa commune bi la fi nekkal gox bi la fi nekkal dëkk bi la fi nekkal Sénégal la fi nekkal. caro yi nekk marché bi nga xamante ni ràññee nañ ko fii si réewum Sénégal ak si bitim réew turam rek tax na ko àgg fu ci nekk si bitim réew moo xam Burkina Faso wala Bénin foo wax wala nga tudd caro yi bi nga xamante ni bokk na si li muy gën a jaay ay légumes ñu si mel ni ay carottes supame basanti ay ñambi kaani ak yeneen yi nga xamante ni ay légumes la yi nga xamante ni ay soxna dañ koy yitewoo di bàyyee ko fu si nekk ngir am ko ci prix yu tax na bile marché am taxawaay bu màgg màgg ci réew mi ak si bitim réew ñu ëpp si jaaykat ak jëndkat lu ñuy ñaan état bi lenn la ñi gëstuwaat bile marché jox ko gëddëm ak taxawaay bu mu gën a